عليك صلاة الله ثم السلام

آمين آمين آمين آمين والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله ñaanal ko ñaanal njaboot yëpp ñaanal kër gi yàlla saxal fi barke bi yàggal ko bi ci kanam njaboot bu nekk na jàng Fatiha ak ñetti salaatul Fatiha ci yow ne ko Fatiha ak ñetti salaatul Fatiha su ngeen ko sëriñ waaw message bu njëkk bi mooy wax marhaban yaa imaam akbar man ban fi ci tàggee satisfaction bi ñu am mooy maam génn yi mi génn ci Sénégal bëriwul kon su Ansaarud-Din bu Tëngéej sax mu ñëw mu ñëwal leen ak ñu dëkk bi xatee ak interdiction yi am ak lépp imaam wan loolu yëpp gannaaw ñëwal ñu loolu satisfaction passé wu ko xam nañ ñun am na cër bu rëy bu ñu jox Ansaarud-Din du Ansaarud-Din yëpp la jox cër boobu loolu tax mu jóg macha allah loolu bi mu amee am na koo xam ne moo yàmbal loolu mooy rassemblement bi nga xam ne mooy am tey te gannaaw bi nga xamee ne mbas mi wàcc na ci àddina bi nii am ay rassemblement yoo xam ne dañ koy interdire lan moo yombal ansaaru din bu tëngéej mu am tey sa tey rassemblement bu toll nii taaliba yëpp ñëw na fi daj julli yëpp na fi daj imaam fekkee ko. waaw yàlla rek. moo yombal ndax euh, démb ci guddi ba léegi. Hmm. ñu ngi jot ay message yu jógee. présidence assemblée nationale ak yëpp yuy wax yuy pousse pour ñu annuler manifestation bi mais comme yàlla su naree dogal dara kenn mënu si dara mm-hmm. waaw ñun tuuti nañ sax ci wax ne manifestation bi ñun ñoo ko war ndax yàlla rek moo ko dogal ak mbëggeel boo xam ne waa Tëngéej bëgg nañ ko bàyyi mu firndewu ci mboolem melokaan yi feeñ tey. macha la mooy perspective Ansaarud-Din bu Tëngéej gannaaw manifestation bu tey. gannaaw manifestation suñ perspective mooy euh, gën a dëgëral Ansaarud-Din gën a yaatal ma massification bi euh, projet bi gën a rëy nag mooy zaawiya bi nga xam ne bàyyi Niass yaakaar nañu yaakaaral ko région de Dakar ñun Ansaarud-Din bu Tëngéej ñun loolu mooy suñu projet bu njëkk te. incha allah rabbi dinañ ko réussir ndax suuf fii rek la desee fii rek lañ yaakaaree département Tëngéej rek lañ yaakaaree cinq hectares yu ñu def zaawee ci capitale régionale bu capitale li may message rek moo sant alhamdulilah rabbil alamin ndax ñaar rek moo xam yàlla def bi na jëlaat na jamaan tey nag lim ñi feeñoo mooy li gën a màgg ci ñun mooy li nga xam ne mooy jëmaalam ji moom yàlla te mooy imaam Cheikh ñu ngi cay profitoo nag ba wax ni ñu ne leen lépp lu ñuy ragal ci feebar yi ñu dégg ak musiba yi ñu dégg wóor nañu wóor yàlla na ñun duñ ci am ñun danañ ci jeexal tàkk ndax kii saafara jàngoro yi mooy ki nga xam ne mooy yónni ci Yàlla sallallahu alayhi te moo bind nit ñi yàlla bàyyi bàyyiwul nit ñi kenn yàlla moom ay jaamam moo leen sàkk jamono bu ci nekk mooy xam lay wàcc ci ñoom ak li mu génne ci ñoom nag wóor na mi nag ne mën nga def tawassul ci kii ñëw fi tey mm. da imam Cheikh Cissé de sët ci Baye Niass de doom te Seydou Aliou Cissé mi ñu xam wóor nañu ne jub googu mën nañ ci def tawassul ñaan ci yàlla feebar bi yàlla génn ko ci réew mi ci loolu lañ bëgg loolu lañ gëm salaamaaleykum wa rahmatullah macha allah لا إله tisbaar takkusaan timis gee suba nangu nga ak bu jot danga nga or benn weer muy weeru koor nangu nga boo amee alal yoo xam ne asaka war na ci nga denc ko atam lëmm wala nga bay danga ci génne asaka nangu nga soo mënee dem màkk aji da nga dem benn yoon mooy farata ci sa dund li ci des ay naafila la nangu nga waaw mooy lislaam waxal alhamdulillah léegi jullit nga li la war li ñu yaakaar moom nga yaakaar jullit ñooy sa mbokk boo leen mënee jëriñ ñoom ñëpp nga def boo ko mënul nga fexe ba bul lor kenn nga loolu man tur nga bëgg ci islam Aminata waaw tuddee nañ la tuddee nañ la Aminata bintu Habib yaay bi sallallahu الحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الفاتحة xaw foofu rek ci benn point bu ndaw imaam di la wax ne la door ko jàll mi yaa ma ko gën a xam waaye nit ku baax la te nit koo xam ne kuy jàppale wante nit ñi yépp pour yombalal egg si ci yow loolu moom yaa ma ko gën a xam waaye baax na buñ toogee ci détail yu mel ni taalibe yi nekk fii ñu seede loolu ci moom mu ngi ànd ak jarbaataam ak Moustapha Ndiir ak Baye Moukhtar kooku sama sëriñ bopp la man maa ko teg noonu ak euh, sécurité bi nga xam ne yëpp mi ngi ànd ak ñoom ku mel ni As Ndiaye ak Gora maa ngi jégalu nag liste bi gën naa bëri bii waaye gannaaw nit ñi dañuy déglu soppe bi te bëgguñ ko féetee ci jataay yu yàgg moo tax ma gàttalee ko nii. gannaaw loolu ñu ngi nuyu di gërëm. maire yi nga xam ne ñoom ñooy maire élus locaux yi nekk si département Tëngéej yëpp maire yëpp kenn ku nekk ci ñoom am na lu mu def dugal ko ci bis bii kenn ku nekk ci ñoom ànd na ak ñun depuis ñu jàpp ko ba tey ñoom ñëpp resevoir nañ ñu kenn ku nekk dem nañ ci sa bureau waxtaan ak yow nga def li nga mën ak li nga mënul yëpp ci bis bii buñ gërëmee maire yi. maire yi nga xam ne nii gën na ñëw dugal seen loxo muy maire yi commune Rufisque Ouest maire yu commune Rufisque Est muy Albert Ndoye ak maire de ville bii ak maire yi Sébikotane ak maire yi Rufisque Nord ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dugal na loxo ci bis ñeneen ñi nga xam ne recevoir nañu ñëpp ñaanal nañu yàlla war ñu ne taalibe bàyyi ci département bi lu ñu nekk rek dinañ ci nekk ñoom kon ñu ngi leen di gërëm bu ñaan kilifa yi ñaanal leen yàlla xam ne population yi nga xam ne yëg nañ leen daal bi bàyyi dëkk ci département bi maire yi yëg nañ leen ci lañ bokk. gannaaw buñ sante maire yi ba pare ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee bis bi comme ni ko Cheikh Baye Diouf waxee ñi ñu tuddee bis bi ñëpp kenn ku ci nekk war nañ la koo tuddee. war nañ la koo tuddee ndax euh, ñun ak ñoom ku mel ni Fapal xam Kébé tey bu bu tëngee melee bii bëri ay taalibe bàyyi moom bokk na ci ñi ko yëngu ak ñi ko yëngal ba tëngee mel bi ba tey li ñu fi recevoir al imaamul akbar Cheikh Tidiane Aliou Cissé euh, ñu ngi gërëm bu baax amul sàmm bi nga xam ne mooy Euh, chef de euh, mooy directeur de cabinet euh, Khalifa Medina Baye ñu koy gërëm baax mom tam dugal na loxoom bu baax a baax a baax ci bis bi ñu ngi gërëm mboolem ñi nga xam ne dugal nañ seen loxo ndax bugguma defaat répétition boo dugal si yëpp moo gën ko loolee kon bàyyi ma ñëwale ko ci imam rek ah man na fi may tàmbalee te bugguma koon a tàmbalee mooy préfet bii moom Pikine fii foog ma gërëm ko ñaanal ko yàlla yàlla dimbali parce que fii ma toog nii lañ ma wax ne ma préfet bële ca ca kër sëñ ci Amadou Fall gàmmu dañ fa waroon a ziyaare ba préfet bi ñëw na bàyyi bañ ñëpp toog ba gàmmu gi toog ba personnalité yeeg ñëpp ñëw ba ñu war a commencé gàmmu gi mu indi police gendarmerie da lay passé xaw ma nag dafa gën a gaaw président wala dafa ko gën a xër xaw ma mu demee waaye daal préfet bi moom moo ko ëpp compréhension kon nag ñu ngi moom moom ci boppam yàlla ko yàlla may compréhension waaye préfet bi yii tamit ko yàlla fay ah imam man li ma bëggoon a wax rek mooy ne euh, dama am benn bés boo xam ne Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop dafa am ci Dakar ko amoon ngénte koo ko ne ko dama bëgg nga ñëw fekkee ngénte bi tuddal ma ci suba gi fekk Oustaz ma woon Kaolack muy oo Oustaz saa naan ko maa ngi toll fii maa ngi toll Fatick maa ngi toll Nangam ba dugg mu sob sob lu mu rëcc ba mu ne ko Baba Lemeen bi saa ne ko kon man maa ngi dem këriñ nelaw ñëwul parce que Baba Lemeen fu mu nekk doy na jarul ko dafa ñëw xamu leen ne lu manqué nit boo nee lu ëpp noonu la noonu moo tax nag loolu li muy tekki mooy li koy firi mooy riwaaye bi ñu wax ci ne bi maam su ñàkk génnee àddina li tax yóbbuwuñ ko Madina ndax yóbbu ko ci xabru bale am na riwaaye bu wax ne bàyyi dafa ne fële fi daaw nañ ko te ay nit ñuy ràmme ñoo fa ne kaaral mu yóbbu ko ci feneen koo xam ne moom comme ràmmkat la mu ràmmi ñeneen kon li ma bëgg a wax mooy fu imaam teew boo fekkee ne mën ngaa ràmm yow da war a dem ràmmi yi ñeneen te bàyyi imaam foofu parce que doo doo am doo am boram bu ko loolu sax am na lu ci wax mooy ne ca Soudan dafa am benn waay boo xam ne Baye dafa ñëw fekk mi ngi jaaxle woon lool dana jaay mu ne ko man de sama jaaxle ji dafa mel ni yàlla mën na la indi man kenn mu ne ko lan la mu ne ko man dama am jaaxle lu métti mooy lan ma dama daan gis waaye jamono yii nag mënuma bàyyi na ko sant yàlla mu ne ko sëriñ bi yéen sant yàlla ci ñàkk a gis ne ko déet bàyyi dem dayoo. waxuma la sant yàlla ci ñàkk a gis yonent bi mais li xew mooy yonent bi te alayhi wasallam bi lay feeñu daf la doon la ñemeloo demee ba ci donoom yi nag fi ne yaay jëm moom demal nga nga nga feeñu ñeneen loolu mooy li nga xam ne moo tax suñ teewee ci kanam imaam daanaka benn dañoo waroon a ñàkk a teew fu teew wala suñ teewee ci jëmm yi te lu ñu bàyyee ko wax dee dara ji beneen bi ci topp nag cheikh euh, imam mooy bi may ñëw léegi man dama tàmm dama ko mos a wax El Hadj ko man dama tànn am kilifa feeg maa ngi dund rek ki war a nekk sama kilifa bu teewee rek ma jox kilifa te nag li ma jàngaguma que am kilifa waaye imam bi neexuma beneen kilifa lay wut loolu gisaguma ko kenn kilifa yàllaa ko tànn kon nag boo yàlla tànnalee kilifa doo mun a moy loolu bi may ñëw ma tàggu. sëriñ Malick sànq bi ma déggee déclaration président bi ma ko waat ko ne ko wax ne lii dama bëgg nga wax ma ci sa xalaat balaa ma ciy wax benn baat wala su fekkee da ngaa joxe ndigal ñu bañ cee wax it ñu wax wax mu ne ma daal li ma lay yóbbante ci nit ñi mooy soo demee na leen wax ne nañ dal te óolu yàlla te mu leen di wax day tamit kenn ku nekk na jàng téeméeri astaghfirullah ak téeméeri laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim ubbee ko sa saatu faat yi tëjee ko ko ku ko man bu set nga di ko def tamit balaa ngay génn sa kër nga di ko def mu ne loolu la ñu yóbbante pour wax ñu ne tamit ñun wax naa ko ca gàmmu tay mag bi ñuy coow naan ñu waaw ndax du ngeen arrêté daje yi ndax nangam ndax nangam ndax nangam man leen loolu mënul nekk xam nga li xew mooy imam mii julli farata boo ko fekkee ca jumaa ja boo ëppalee ba ne allahu akbar te waxamul allahu akbar amul julli mm. soo asalaamaaleykum dama xamul asalaamaaleykum sa julli yàqu na. waaye ci wàllu àddina président moo mooy imam bi moo waxoon ne nañ dal dara xewagut bu dara xewee danañ ko wax. kon ñun moom ñoo a tëb tëb rek annulé. président wala dañ koo gën a xam ne xew ci réew mi loolu du teggin tey tamit du respecté sëriñ léegi nag bi loolu xewee man day li ma gën a loon man man mu ndaw mii mooy président xam ne numéro xalifa général yépp parce que nag bu bu ñu waxantee dëgg bu campagne bi jotee kenn ku nekk danañ wax ak yow bu ñu wax ak yow ci waaye danañ ñëw ba ci yow sa jëm kon wax ak ci lii nga xam ne moo gën a sérieux moo gënoon a yomb nga ko invité danaa yëpp nekk nga wax ko ne ko lii moo ko ci réew bi dañoo war a kon ñëpp dañuy daal di def déclaration mu jeex yëpp yi nekk ci jàmm. am na itam lu ma dégg wax ne euh, waaw xalifa général yi ñoom ñu jël seen responsabilité waaye ñu ngi leen di gërëm parce que jël nañ seen responsabilité annulé ba pare xaw ma nag jàng bi ñoo njëkk a xam dañoo njëkk a ay information wala dañoo jiitu état loolu yëpp ñun mënuñ mënuñ ko lijjanti li ñu mën a lijjanti daal mooy président waxee ci réew mi lañ bokk li président wax nangu nañ ko surtout lu sérieux nii xam nañ xam nañ ko kon nag dajaloo yi du dara lu mooy ñaan yàlla ak dox mbokk fi ci fitna na lay dund ñu bàyyi ko loolu xam benn problème am nañ leneen lu ma naqari balaa mooy réew mi ci lañ bokk waaye Baye Niass dafa waxoon ne Sénégal réew mu baax la réew mu am barke la mu lu nekk la waaye len la ragal mu indi problème Sénégal mooy par parloo par parloo boobu boo ko bàyyi di wax léegi ëpp na cinquante ans ne par parloo lay ragal mu indi problème bu autorité yi nga a mag ci réew mi di wax xew-xew yi nga xam ne moo xew moo war a xew ci mois de rajab te ñun taalibe Baye amuñ lu ëpp Baye ñu tudd xew-xew yëpp bañ a tudd gàmmu tey ba wax dëgg yàlla ñun loolu neexuñu loolu moom dama wax loolu sama engagement la neexuñu waaw du dara nag ñu ku ñu ñàkk a tudd yi tamit du ñu wàññi dara waaye nag comme ci réew te yàqu ni réew mi kon tamit cër yi ñuy jox réew mi même bu dee tur la nañ ñu ko jox loolu loolu loolu loolu ci ci ci kii bi la euh, li may wax nag mooy dégg naa léegi benn kaset boo xam ne bàyyi ko wax waaye moom li wax leer na am na benn délégation boo xam ne Senghor moo leen yónni woon mu nekkoon équipe gouvernementale bu bees bàyyi wax ne taalibe yi na ngeen xam ne tubaab bi nekkoon na fi te dara taxutoon mu iris ngir mooy ëpp ñu doole waaye nag ñun daa nañ nangu di def li neex tubaab bi ngir bugg jàmm ak buggal suñ suñ suñ suñ njaboot jàpp te tubaab bi ëpp ñu doole rek tax mu ne waaye gannaaw bi beneen gouvernement ñëw fi boo xam ne ay sénégalais lépp luy baax lu baax lépp luy ceeb ñu raxas ci suñu loxo moom set waaye terewul moo ñu gën a mën tubaab bi ndax suñu jarbaat lañ ak suñu doom buñ demee nag am gouvernement boo xam ne nag ñoo faroo mu ne bu boobaa nag taalibe yi dañ ba lépp lu gouvernement bi santaane suñ koy def bu ko taalibe yi def yem ci waaye nañ ca man lii mooy fële fële doo fi bàyyi maanaam am benn yoon boo xam ne yàq ak yàq ak xuloo ak saaga am na ci ak lu mën ca kaw rek yow li la war ci réew mooy defar loolu mooy mooy mooy déclaration bi nga xam ne bëggoon naa ko wax engagé wu pour man nag kenn wax ne kii la wala naan la léegi nag li ci mooy imam te daanaka loolu rek laa war a wax am na nga saxoon kon kooku suñ ko amee nag waaye li ci neex mooy tar dama ko wax ca euh, maasu jànq ji ca kanam imam Alaaji Moustapha Gueye euh, euh, wax wax ci wax ci wax ci wax ju wax ju neex ma ne imam day fi mu ne nii yàlla jox na ko maqaama boo xam ne maqaama mënu ko gën a kawe ci ko mën a yokkal mu tegal ma ci ne ma waaye nag daf koo yàqut nag waaye daf koo yàqut nag wax jooju neex ma ndekete euh, Sidna Omar ba mu demee bay waaj a génn àddina te waaj a ñëw naan ko looy jooy yow nga xam ne yonent bi gërëm na la fi yonent bi génnee àddina léegi nag moom oustaz oustaz Moussa Gueye Moussa Gueye mu tegal ma ci daf koo yàqu nag kon nag imam yàlla bul yàq yàlla bul fekkee fu ñu yàq yàlla koo xam yàlla bul yàqu ñun day ñu ngi lay sagoo te waxuñ ko pour xam nga ni ñun duñ duñ duñ duñ kiiwu kenn koo xam ne da dem di wax ni te te wax dëgg yàlla sax nag am magam julit ab imam ab kilifa wax ko lu ko neex pour jàmm am sax neex ko pour mu pour mu pour xolam neex bu xolam euh, nga fi mu nii bu ma boo taggee imaam ba xolam neex rek nga nga nga dugg kenn dugg si euh, kii am na benn waay boo xam ne sax kooku ma tooñ ko léegi am na benn waay bu ne ma imaam daal boo duggee néegam ba mu ne Abdou Karim mu ne man fi mu ne nii damaa dem ba Abdou Karim dama yaakaar ne sax imaam bi ko mais xam nga boo fexee ba merloo imaam ba nga xam ne nit dana ñëw mu mu dummóoyu ko wala mu wala mu koy ko jox yow yaa ngi ko rek waaw kon nit ñu baax ñi nañ leen di wax ne yaa baax nit ku baax dañ koy wax baax yaa baax wàññiwul dara dafa yokk mbaax rek kon nag ñu lay sagoo te wax dëgg yàlla lu toll ni mëj na lu toll ni jumaa yi bàyyi ji ñu jox la ko su soo soo ca defoon leneen lu loolu ñun ñëpp ñooy am gàcce te te bu boobaa kon boo ca defee teraanga fonk say mbokk fonk say nijaay fonk say lépp kon ñun ñëpp war nañ laa sago lii waxuñ ko pour neexal kenn pour mu jox ñu dara waaye dañ koo wax parce que maanaam loolu mooy ma maanaam bu imaam mu la su baaxul lu baax ci ma dina ci imaam mu la baaxul lu baax ci ma dina kon benn ñun ñoo ñàkk fayda ba xamuñ ku ñu war a jiital ci jumaa ji wala boog euh, ñun ñoo ñun ñoo amut ku ku war a mat imaam ma tëjee ko nag ne ko démb damaa dem ci euh, Babalène toog rek imaam di ñëw am ku ko annoncé ne ko imaam ngi ñëw rek mu jug toog mais ah jarbaat boobu dafa jug dafa jar jug indi leen ma sama yëy indi leen sama baxana te boobu ñun ñu ngi toog ak moom ma ne ko loolu mi ngi niroo ba Sidna Ousmane ñëwee fekk ñoom Sidna Babacar ñoom Sidna Omar ñëpp a fa yonent bi soppiwu toogaayam defar mbubbam bi ah, bi Sidna Ousmane duggee mu changé toogaayam defar mbubbam ñu ne ko lii lan la mu ne ndax man du ma koo xam ne balaa kii dañ ko ma jugee fa dem kër sëñ maa yi am ku ko laaj ci sama kanam ne waaw lu tax yow foo dem rek balaa ngay wax ne ñu ngi leen di indul nuyoo xalifa bi waaye ñu ngi leen di indil nuyoo imam mu ne ko yow tamit jiital nit ba pare di ko ñàkkal fayda loolu ci ñàkk fayda la bokk imam bii xam nga lu mu bon bon bon bon oto bi nga yoree ak lu mu baax baax baax chauffeur bi ko yoree xanaa nag da nga ko sagal may ko jàmm pour mu wóobu oto bi ci jàmm oto bi gën a mag ci oto bi nag ci oto yi nag mooy jumaa ji wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala